bëgg a jël dañ ko la koy nangul rek ndax mënuñu si dara tamit nag ku si nekk ak eh, ni nga bëgg a servir sa réew lu dëgg. ah non mais ah, noonu loolu jaamu yàlla la voilà jaamu yàlla la. xam nga tey ba ci journaliste yi ngeen di doon mm. yéen. yéen journaliste ku si nekk sa métier dëggantaan normalement boo deewee àjjana nga war a def. ah ñun dañuy jaamu yàlla chaque jour parce que xam nga lu tax non mais léegi dafa yàqu. Mm. léegi parce que journaliste day toog di juger te loolu du mission. dëgg la warul di juger. journaliste mooy xaritam. Mm. loolu la ma fee bi parfois nga ñëw ni nga ko waxee mm-hmm. ñu dem mu jaare noonu jour boobu nga nga tàcc mm-hmm. parfois nga relaté nii fee bi bi ñu demee ba am preuve yi demeewul noonu nga rectifier rek nga bu fekkee ne ne kii mun nga rectifier mm-hmm. mu ne journaliste fee mooy xaritam mais journaliste du juge léegi nag journaliste day toog di juger day na waar xam loolu procureur sax bu la jàppee daf lay chargé rek après ñu dem ci juge bi mu doog la juger loolu nag mais journaliste tey bi dem wane fi ñuy fii personnel bi amul amul seen euh, tey ki wane problème bi am journaliste yi wax ko fii amul ndox journaliste yi wax ko tey ñu am injustice bu am waaw léegi gis nga yooyu journaliste yi def ko hmm. ba mu feeñ ñool solution am hmm. mais ñaata tuyaaba ngay am kenn xamu ko looloo tax ma ne la yéen muy journaliste muy yéen muy avocat muy ñeneen ak ñeneen bu jub muy journaliste bu jub muy muy muy politicien bu jub hmm. xeex benn dëkk ba mu am euh, forage loolu yi ay xeetu yiw la. d'accord parce que yàlla nee foo nekk rek jaamoo fa yàlla. Mhm. sa métier boo munti nekk rek gisal bul gis leneen lu dul yàlla ndax wërsëg yàllaa ko yor. Mhm. te titre seexluwul kenn. Mhm. sàcc sax day am titre. mais cër nag ak barke ak ak sutura yàlla moo koy joxe ak wërsëg. ak wërsëg waaw dee tamit si loxo yàlla la nekk moo tax ñiy ëkkuwaatee ñiy menacé waatee ñi nañ dem tëdd nelaw. d' accord euh, yaa ngi wax sànq tout à l'heure si wàllum jàmm yàlla si ay fii amul ndox fii amul euh, courant lu ni mel euh, bon de coupure lañ daal di indi maternité bu nekk buun sa Kër Massar ñu joxoñ baaraam maire bi di aadama saar te loolu warul woon am foofu ca Kër Massar waroon nañ di fay ndox mi courant bi surtout si maternité mu doon loo xamante ne ñi nga xamante ne ñooy yeewoo Kër Massar dañ koo métti lu yow tey jaaw situation boobu yow. maire ba ne fa amuñu benn problème am na lépp li nga xamante mooy ay jumtuwaay si euh, wàllum si si maire bi pour liggéey maternité ba nga xamoon ne Kër Massar ñu koy indi ay bon de coupure d' électricité. xam nga loolu. Euh, c' grave soxna Mané grave na trop. <laughs> mais gis nga du fi jeex. ah ouais. du fi jeex xam nga problème bu amee rek nit ñi lu ñu gis mooy indi nañ bon de coupure. Mhm. mais xam nga lan la lan mooy régler problème bi. Mhm. dafa am dans les postes de santé ak dans les maternités dafa am comité de gestion de santé ñooñu ñoo système sanitaire bi dañ ko war a xam nga mhm. ticket ñuy ticket non non dugg ci hôpital bi ticket yi ak pharmacie affaire oh, pourquoi ñu jël ko groupe comité de gestion santé mhm. muy recruter ay personnel relais personnel prime dafa am ñoom dañuy nekk ci biir milieu santé bi di dundee santé bi même yow médecin bi bu amee lu mu soxla parfois ki dul médecin te bokk ci comité de santé bi ak trésorier bi moom moo koy jël moo koy jox autorisation c'est que loolu la ñu war a réformer et et je demande et j'exige tey boo demee ci biir hôpitaux yi maire yi yor gis nga tey boo demee maire yi mën na ñëw recruter 100 personnes yu dugal leen ci poste de santé bi exemple te maire bi manqué te te poste de santé bi amul amul rajo parce que la gestion de la santé lépp warul nekk ci loxo collectivité local mais ticket yooyu noonu pas patient yi di jënd loolu bu ñu ko dajalee au bout de temps mën na jënd ay matériel léegi nag xam nga bu dee ni dañ naan ASC yi xam nga bu njëkk poste de santé ak case de santé yi dafa amoon ay ñu koy yor mooy comité de gestion de santé yi léegi day am ay représentant ASC am mm. représentant keneen maire bi ñëw nommé

tey mën na am mu dem trésor parce que xaalis nekkul ci biir mairie bi mën na am mu dem trésor trésor yéex a décaissé wala yéex a fay loolu mën na ah, am facture bi le temps bi waaw léegi nag loolu moo waroon am wala nga ko vérifier sax xam nga tey moo waroon am nag gis nga day am caisse xam nga tey mairie Dakar problème lan moo leen jiiram caisse d'avance ah. xam nga lu indi caisse d'avance bi mooy c'est-à-dire parfois day am ku ñëw ñu war ko opérer yenn retard yi daa bañ am. non comme cas d'urgence cas d'urgence am. Mm. la tant que ngay defar dossier kii ñu ne ko dañ ko war a opérer wala mm. kilifa la wala mm. dafa am lu xew ci dëkk bi diggante bi ngay def procédure. muy dem trésor muy décaisser muy leneen dafay dee. wala daf du mën fay lakk loolu ngay gis ci compte yi ci ci cour des comptes ñu ne la diw dafa def dépense bu jaarul yoon. fekk crise day am yow budget bi nii lañ la ko joxee. am situation d'urgence bu taxaw moo tax nga gis parfois ay plan Orsec. xam nga plan Orsec su amee période boobu doo am passation marché doo ko xaar parce que ndox maa ngi gaañ mu ngi keneen dañuy réquisitionné sax jël bu ñu paree doo ko def facturation mhm. loolu day am commune bi nag bu nekk poste de santé bi boobu day am comité de gestion comité de gestion bu ne am na recette yuy dugg foofu recette yooyu di dugg foofu nag parfois ñi ko yore bu dee ñoom si la ñuy fayeeku si la ñuy jël seen kii parfois loolu la ñuy bi. Hmm, donc dañ gestion bi daal moo baaxul. organisation administrative yi. moo moo moo moo moo tax nag gis nga xam nga tey lii nii mun nga mën nga dem foofu fekk tey am nañ lu bari parce que xam nga tey sama benn xarit daf ma expliquer mu ne ma période euh, période feebar paludisme bu amee hôpitaux yi yi dañuy am recette yu bari ci diggante boobu nag yow boo nekkee infirmier chef de poste bi wala chef de santé poste bi mën nga recruter bu bari mhm. ci ci ci ci xaalis boobu léegi nag bu période boobu amulee beneen période ñëw malade bariwul santé bariwul xaalis boo fayee ñoo ñooñu dootoo ko amati ak prime yooyu di jóge foofu moo tax dañu war a dissoudre moi demande que dañu war a dissoudre parce que un maire bu tëdd fële mhm. nga jël sa sa benn nit nommé ko wala sa secretaire municipal mooy jàpp maire te ba pare dañuy recruter ay nit prime santé yi mhm. léegi lu toll ni santé ci dëkk comme lu mel ni kër Kër Massar poste de santé sax waratu fa am commune bu nekk war nga mën sa budget Mhm. nga recruter personnel sanitaire wala nga tànn ay étudiants. yoo xam ni waaw comme ni Kër Massar toll xam nga dans les normes Kër Massar ni mu toll commune bu nekk war nga mën am benn centre de santé. parce que yow maire bi bu ñu la falee nit ñi lenn rek la ñu am accès si mhm. yow mooy santé ak éducation c' que ñoom ñoo war a bàyyi les maires yi naan dañuy recruter ñuy bale mbedd yi UCG SONAGED mën na ko mhm. loolu dañ leen war a détacher loolu. FERA am UCG am yooyu yëpp c' est di double dépense beneen bi mooy santé. boo ñëwee yow sa commune nit ñi di feebar am problème di jóge fii am mm. AVC nga jóge fii war a dem ba hôpital Fann neurologue ci diggante bi ngay dee mm. waa Kër Massar waru yow mënoo mën a recruter yow benn neurologue mm. ci buñ la waxee nga ne li ma leen waroon faje hôpital bi fexe naa ba mu am spécialiste lii spécialiste li spécialiste lee subventionnel leen ticket yi mais si vous avez un hôpital nit ki bu dafa a nar ay million bu démarré fi rek mo am xam nga maternité nit am cas mm. ambulance diko évacuer indi indi de gestion santé parfois dañ ci gis millions yu bu mais def investissement santé bi personnel lañ koy santé mm-hmm. normalement état assises yoyu nak gis nga 16, assises là les vraies assises mm-hmm. les réformes tey fan lañ war a toll mooy semi bi ngay dégg tamit nan la semi, di mën a amee agence am personnel di def publicité di def ay personnel ba pare nga ne da ngay dimbali ay fajkat mhm. yooyu moo indi problème yi moo tax il faut que ñu dem vers des réformes très profondes ba pare ñu xool statut ku maire recruter ci biir hôpital doo tolloo ki fonction publique recruter fële. maanaam ñu di ñu dispatché ko daal. non xam nga tey foo mu nekk benn fonction publique mhm. direct. wala état du Sénégal moom au lieu mu leen di jox li mu leen di jox ci fonds de concours yi ak fonds fonds fonds yooyu mu leen koy recruter le personnel. waaw ah, ba tey loolu tam mën na nekk solution. c'est-à-dire bu ñu ñëwee ci dëkk ñu xam ne fii santé bi mooy problème bi mu xam ne ni ñoom bu ñu recruter ay personnel santé bu dëgër. da mm. leen koy def dafay da dana leen alléger yenn yi mu recruter leen ko personnel. Mm-hmm. affecté leen ko. bu mm-hmm. ko defee population bi moom dañu am problème ñu bañ am problème. parce que tey boo ñu ba pare nag gestion santé bi ci biir hôpital bi. Mm-hmm. ñu affecté comme ni mu amee ay ACP. xam nga administration fu nekk day am benn agent comptable particulier ñu teg ko fa mm-hmm. wala ñu xool l'autonomie de la gestion des des santé euh, des centres centres de santé xam nga tey centre de santé bu mel ni Maris entreprise yi nekk foofu yëpp dañu war a bokk ci conseil d'administration bi mm-hmm. hôpital bu nekk waxuñu ay ay ASC waxuñu ay leneen mais hôpital bu nekk li ko wër ci ay ressource dañoo war a bokk léegi ñooñu tey war nañu mën a daje ne suñu hôpitaux bi kat il faut que nous utal le levé de fonds faire ba niveau 4 faire ba mu au niveau lii faire bon mu ah, mais da ngay comme de Dakar le maire le président conseil d'administration de hôpital bi mhm. ban sens là nous dem Pikine ñu le maire sens pour recruter mhm. ville bi subventionner hôpital bi santé éducation buñ ko délégué. kenn waru ko délégué c'est pas des pouvoirs yu ñuy délégué parce que yeggaguñu foofu. ay obligations la kay urgence. ay urgence wala soit ñu détacher ville de Dakar 54 milliards la am mais am nañ dix communes yépp am nañ budget ñu nako yow santé cassé ak mm-hmm. éducation luy école ak luy luy santé nga yore. Mm-hmm. ñu Pikine ville de Pikine ñu wax ko la Pikine ni mu toll centre de santé Dominique amul dara amul mm-hmm. imagerie médicale amul dara légui ville de Pikine mom bu ko nexé mëna def yenen investissement bàyyi santé bi. Mhm. loolu mo indi problème motax facture bi buñu ñëw rek ñu attaqué. le maire le maire mën na nek tamit problème ci comité de gestion soit wala yeen journaliste ngeen dem. Mhm. def enquête bi. parce que dem nañ fa mais maire bi mu ñu ko gis. ngeen waaw parfois euh, aussi tamit ñom tamit loolu dañu defo parce que bo bo euh, accessible lool si euh, askan bi. tamit te bo xolé tamit comme cœur massa dañ ko dag découper récemment. Mhm. découpage bu bees. Mhm. maire yi mën na am yu bari pareegul doo gis yenn yi parce que ñun bu ñuy découper commune daggate daggate yi sax dafa amatul benn sens. xam nga tey mu ngi mel ni yow maris goo nga dëkk. Mhm. tey gis nga la fa nekk yëpp ci ay infrastructure ah, ah, fa la centre ba nekk fa la centre bi nekk mais tali bu baax sax Babacar mee nga dugalu ko fa. ndox tali yooyu yàqu ndox ya ba tey ma nga fa. te mhm. pourtant fa la centre santé bi nekk fa la lépp nekk. donc loolu aussi tamit c'est des problèmes. mais Kër sar dafa bari problème mais le problème c'est le comité de gestion des santé ñu maire bu ñew nga nga wàccee ki fa nekkoon def ko trésorier dindi kene lool fofu ñu dissoudre ko ministre de la santé bu bees bi fofu mu tok ñu waxtaan ci mm. xoolaat semi bi aussi nan lañuy fexé ba mu autonome dello ko ministère de de de la santé ñu fexé ba Sénégal yépp ñu rendre ko obligatoire. ak lu melni sami national té man dama tit sami national la gis mu grève. sami nga xamné ni bo démé Côte d'Ivoire. dëkk yu am solo yi nga pour nga voyager léegi dangay ngay xool ndax sami ba baax na te sami man dem naa fa jaara bay une des meilleures organisations c'est-à-dire un milliard la woon ci Covid bi lañ xam njëriñam tey sami boobu tey buñ ko joxoon budget presque ay cinquante milliards collectivité locale bu nekk ut benn espace mhm. département bu nekk utal fa siège sami sey sami mën na déplacer wu yow ñëw jël sa malade gérer ko traiter ko te du jàll mhm. te du yegg fële mhm. bu amee évacuation santé moom moo ci gën a gaaw